Pire di ab noddukat bu bëggoon daal tabax li nga xam ne moo di ab jàkka foofee ca village bu Ndieye moom nag ñi ko wër ñoo ni déet du ci dal ginnaaw ga nag la daal di xëy moom mee di Basiru Mbay tàggoo waa këram ne nañ ko defaral añ balaa moo ñëw naka mu dem foofee ca fa nga xam ni moo di fa la ñuy war a def bi lépp juma ci la ko fa ay nit fekkee rek daal koy dóor def kon naka sudul noonu ba mu jaaree fa ñàkk ci bakkanam fi ñu toll wàllu tembe nag yoon ubbil na ab enquête rek pour xam lan moo sabab bi lépp mbir xibaar yi nag day wéy dañuy dellu ndiki démb foofee yemook gaaw nekkoon nag juróom-ñetti fan ci weeru octobre ci at bu ñu nekk fii nag nga xam ni moo di Sénégal jot nañ fi amal li nga xam ni moo di mawlut ñu gën koo xam ci gàmbo démb nag dëkk yi nga xam ni dëkku diine yi nekk fii ci Sénégal féete nañ li nga xam ni moo di juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu nag Tiwaawan nekk fu fës foo xamante ni xalifu tijaan yi fa la nekk te tijaan yi fa la ñuy na ardu li nga ni moo dip gàmm gi ginnaaw ba nga xamee ni amaloon nañu lii dip cérémonie officielle moom nag ci biir cérémonie officielle boobu ginnaaw ba mu ñëwee ci ab jàngat xamal nit ñi rek li tax lu tax ñuy màggal lii dip gàmm ñëw na nag wax ci situation coow réew bi ginnaaw na ba nga xam ne kii di président Macky Sall ak Antoine Félix Diome demoon nañ fa dem teewee li nga xam ne moo di cérémonie officielle mu ngi leen di wax ci ay kàddu dana leen seen xel te ngeen xam ne nag réew mi yéen a ko yilif réew mi nag ñi fi nekk ñi ngi dund dund bu metti tey dellu si chef de l'État ak ñi àndal pour rek ñu amal doxalin bu wóor woy wéy fii si Sénégal ñun dañuy dem foofee ca Touba ànd fa ak tiis ak ndakar ginnaaw ba nga xam ne kii di Serigne Fallou Mbacké Jumoda moo génn àdduna ndikki dibeer yàlla xaree ko ajana yi firdaws moom nag fan yu ñu génn di ab usine boo xamante ni agro alimentaire la doon defal li nga xam ne moo di diwlin ak ay aliment de bétail moo amoon ab explosion ba ñu jutantee nemmeeku ay doomu aadama yu nekkoon ci bi lépp usine ñàkkee bakkanam am na ay blessé yoo xamante ni jotaat nañu ñàkk seen bakkan ginnaaw ba ñu foofee ca hôpital ginnaaw bi lépp lakk ñoom nag dund bi lépp mbetti mënatuñu woon dund bi lépp metti ñoo des ci bi lépp hôpital talaata bi ñu génn la amoon foofee ca Jurbel di ab usine alimentaire ñu ci li nga xam ni moo dépp accident yu ñuy jàngat ci bi tali tale tey nag sapeur waa sapeur pompier xëy nañu fësal ci journal bi di xam leen rek ci dig dëggal gàmmu gi jot nañu enregistré lu toll ci fukk ak juróom li nga xam ni ay accident yu ay oto amal ci yoon yoonëpp dem bekk dikk bi ci fukki ak juróom yooyu nag ñaar jot nañ ci ñàkk seen bakkan waaye sauvé nañ ci lu tollook 54. mel nag mu ngi xewee ci dig digal euh, gàmmu gi ba tax na nag waa sapeur pompier di ñaax rek yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu dem beek dikk bi ngeen ñu indi yeneen euh, code de route yu bees ndax nag li ni mel nag bu wëyee dina indi li nga xam ni moom la ñuy woowee hécatombe sur les routes mbokk yi nag ñu wëy ak ba tey ci xibaar yi ginnaaw nag ki nga xam ni moo di théâtre bi di Lamine Ndiaye génnoon na ne dafa jotoon amaloon ab liggéey bu dox ci digganteem comédien bu mag bii nii di joué katu théâtre ñu gën ko xam ci Sanex ak ki nga xam ne moo di Zozo ba ñu liggéeyee ba tey ji rek jotul li nga xam ne moo di ab payooram ba tax na nag ki di xam ni moo di Sanex génn na nag war foo gën a aaye rek di xam le nag kile di Lamine Ndiaye da jot ci bi lépp xaalis wax jooju nag jotoon na indi ay polémique nag ba tax ku ci nekk di ci yëyëk yàbbi ci wàllum internet bi ci réseaux sociaux yu bari nag nemmeeku nañ ci kenn ku ci nekk rek ku wax ba pare rek jox na moroomam ñenn sax dem nañ ba naan ki nga xam ni moo di Sanekh ak Jojo war nañoo xoolaat seen bopp ndax du guleet nag am kuy génn di leen wax ni rek liggéeyal nañ leen te jotuñu suñu payoor réewub Sénégal amati napp ndap ginnaaw ba nga xam ne ki la di soxna Ndaté Cissé dëkk foofee ci Touba dafa demoon fi nga xam ne moo di Dubaï ngir rek amal li nga xam ne moo di ab concours lauréat de récital de Coran di app jongante bu dox ci jàng alxuraana moom nag di soxna Ndate Cissé moo gagné bi lépp concours tiis ak ndakar foofee ca Padoa di ab ndaw bu ñu gis foofee ca mbedd Padoa yi waaye nag niñ ko gisee neexul benn yoon ndax dañ ko fekk mu ñàkk bakkanam daal di ndarke pek ubbite yi école bi nga xam ni dooroon na niki semaine bu ñu génn waaye nag ndiki suba ñu ngi ndégéeni ñi nga xam ne ñoo di élèves yi ak ñii di professeurs yi ngir amal li nga xam ne moom la ñuy woowee ubbi tey ak jàng tey mbokki internet seen acti TV yi leen leen indiloon tey li gën a fës ci xibaar yi di leen jox dig daje waaye laata loolu way leen di abonné te bu leen di fàtte di appuyé ci cloche de notification bi pour mën am suñu ay vidéo la rubrique fii seen chaîne chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information